wuti gàmmu yow na nga sañse tey xeeñu lu neex ta berndeel gan yi la dalal biir ci waawan gàmmu ñëw na àndoon ñëw ci samay doom ñoo fekk ma toog ñu ne ma papa foog nga dugg ci kañ laa dugg tey ci guddi incha allah dañuy dugg studio. Baye tey dugg ci kon nañu la ci studio rek ma bëggal gàmm gi jotee ma woy Mamadou Lamine Hanna kenn du yeneen bi